ginnaaw loolu mbokk yi fii jamono toll ak ni politique bi yëngalee réew mi ba dugg ci ay kër ak i néeg yoo xam ne lii mbir tey mbir mooy politique bi warul fa woon a dugg wala bim fa duggee lañuy ñuy séentoo ko yaakaar ci ñoom mooy ñu soppi xar kanam bu ñaaw bi ñu xamee politique ci senegaal dox ci waneen doxin wu gën a méngoog doxinu ab jullit doxin wu ànd ak ngor ànd ak jikko yu rafet waaye politique wu xastante weccoo ay kàddu yu ñaaw ay saaga di tëkkuwante ka fexelante ak di noono loolu jëf la yu suufe jëf yoo xam ne jullit bu ne war na ko jombale boppam asgor su ne war naa jombale aw làmmiñam di génne yenn kàddu yi mu jëm ci nawleem rawatina koo xam ne dañu lay tudd di tudd diine eh, li gën a doy waar nag mooy ñii politique ci réew mi dañoo làmboo pas-pas bu yàqu boo waxee rek ñu ne politique la ci àdduna la yem jàpp ne comme politique la euh, mbirum àdduna rek la lu leen neex wax lu leen neex def na seen mbir baax rek dara nekkut ca ku ñu jàmmaar lool lu ne sañ nañ la ko wax sañ nañ la ko def ngir yàq la mbirum àdduna la loolu pas-pas la bu juunu njuumte lu rëy la wallahi amut lu nit di wax wala mu di ko def ci kaw suuf lu yem ci àdduna lépp rek ëllëg sunu borom dana ko lijjanti dana ko xisaab euh, kon yenn kàddu yi ak yenn taxawaay yu suufi yi daal eh, jullit bu ne asgor su ne war na koy watndiku rawatina koo xam ne kilifa nga bu ñu la tuddee xel yi dem ci diine ngir lan ngir saw askan ku yàlla baaxee nga feeñ ci askan woo xam ne fu ñu tuddee say baay say maam ñu ne askay ngir seen liggéey bu rëy bu ñu liggéeyal yàlla ci diineem ji ñoo toj réew mi wala ñoo toj réew yi taal taali jàngu yi tabax daara yeeg école yi di jàngal doomi jullit ñi yar leen di wooteel yàlla seen dund yëpp ñu jeexal ko ci loola askan wu mel nii ku ca feeñ am nga waar wu maga maga mag woo xam ne mën nga di ca xëy di ca gontu jeexal ca sa dund yëpp te bàyyi fa loo xam ne eh, ñeneen danañ continuer di xëyee ko gontu ca waar wa ba ilaa mi diin bu fekkee nag yow xamoo sa bopp wala àdduna këf na la seytaane muur na sam xel nga mën a bay liggéey bu toll noonu soobu ci xëccoo àdduna di ko def ci anam gu suufee ci anam goo xam ne ña judd ci politique nàmp ko ñu yar leen ca sax de ña baax ca ñoom jombale nañ ko seen bopp loolu lu doy waar la waaye lu mat a bàyyi xel la amul ci àdduna lu ko jar la ci gën a soofati nag mooy ñooña ngay politigal bëgg a dabu seen ngërëm ba mu yóbbee ngay wax yenn wax yu suufi yi di taxaw taxawaay yu suufi yii wallahi ñoo lay njëkk a ñooy njëkk xam ne yow ku doye di nga ku réere sa bopp nga ñoolay njëkk yap mbokk yi xam ngeen ne réew mi ñaari tànk yi muy doxee muy diineek aada jamono ju ne yéen a ngi dégg kilifa diine yi kilifa aada yi waaye ci seetlu kilifa aada yi baaxoo nañ bu ñu demee ci kërug diine walla ci xew-xewu diine bëgg wane ne ñoom dañoo jàng diine dañ cee am xam-xam loolu yóbbee leen ñuy sonn lool ci bëgg jàng benn aaya alquran wala benn ab xadis wala wax joo xam ne ju xam-xame la waaye lu leen cay fekk danañ ca weeree seen bopp jéem ga ñuy jéem a wax ci diine te jànguñ ko xamuñ ko danañ ca weeroo e, ñépp reetaan leen ñëpp yab leen xam ñoom ñooy ñan safaan bi moom la ñii di def ñii nga xam ne seen tool seen waar mooy diine ji ñu waroon ca jeexal seen dund defuñ ko dem ca politique ba nag am ca eh, taxawaay ak i kàddu ak i jëf yu suufee ba eh, yegg ca ñen nampoon politique xalaatuñ ko ndax jombale nañ ko seen bopp loolu ak yàqute la eh, njuumte la waaye ak tooñ la day wane it ne ñi koy def sa dëgg-dëgg xamuñu seen bopp te ña ngay tooñ seen mbokk ña ngay tooñ seenu askan bu yeboo nag ñu xam ne lislaam moom diine yàlla sunu boroom la jamono ju ne ci gox bu ne yàlla ngi tàggat ay ndawam ñu koy xëyal ak gontu ci diineem ji wallahi ci réew mi am na ay soxna yu baax yu yàlla baaxal tawfiixal leen ñi ngi liggéey liggéey yu rëy rëy rëy ci diine ji ubbi ay daara ay jàngukaay yu mag di yare di jàngale ay mbooloo yu bari di génn ci seen loxo loolu ndam la ñooñu ñu ngay siggil seen mbokk ñu ngay siggil seenu askan yow mi nga xam ne loolu moo doon sa ndono bu fekkee bàyyi nga ko sunu borom moom wa in tatawallaw yastabdil qawman gayrakum summa laa yakunu amsalakum saa bu ngeen bàyyee seenu waar dem faneen rek waar wa ngeen waroon a bàyyi ñeneen daañ ca dal incha noonu la jamono di doxe kon daal euh, nañu xam ne képp koo xam ne saw askan jox na la warma ak wàccuwaay boo xam ne euh, ñu bare bari ci nit ñi ci askan wi nga bokk rek day tax ñu jox la cër fonk la warmal la loolu ndono lu rëy rëy la loo xam ne boo ko mënta yokk war nga ko sàmm nag ba teg ko ci loxol ña lay donn waaye boo ko deful tooñ nga yàq nga eh, la shaacir boo waxoon walam ara min uyubi nnaasi ayban ka naqsi alqaadirina ala alkamaali ki war a yokk wara matal kooku bu mënta yokk eh, loolu rek da ko doyoon ayib waaye bu ca boolee di wàññi nag loolu ayib la ci kaw ayib te lépp ay lëndëm la ay njuumte la yoo xam ne sa dëgg-dëgg Eh, ñi ci nekk war nañoo seetaat seen bopp bu baax a baax jëf ju bon wax ju bon jaaduwul jekkul ci jenn jamono waaye ci suñ jamono jii nga xam ne ku fi wax walla nga def fi ab safaan benn day gaaw a tasaaroo lool dana yegg ci barab yu bari waaye day yàgg lool ne ci barab yoo xam ne jamono ju ne nit ñi danañ fa mën a dem Eh, di seede ne diw moo fi waxoon njombe wi moo fi defoon njombe wi loolu mën a yàgg lool dem bay gaañ di lor sa njaboot say sëtaat sax yoo xam ne ñëwaguñ ci kaw suuf loolu war naa tax ñëpp gën a góorgóorluwaat eh, xoolaat seeni doxin te jéem koo jekkal xam ne xëccoo àdduna bëgg lu neex nitu àdduna wërta tax nag nga sànni sa diine warul tax ab jullit di sànni ay jukkoom warul tax as gor di sànni ak ngoram ak di ko sàggane di wàccee boppam ci wàccuwaay yu suufee yoo xam ne rek jaaduwul benn jullit mu defa wàcc kon daal euh, mbokk yi ñi ngi soññ suñ bopp di soññ képp kuy dégg suñu kàddu ñuy bàyyi xel sëriñ Tuuba radiyallahu anhu loolu mu waxoon ca al jawharun nafis واجتنبوا قلطة هؤلاء لأنها من أقبح الأشياء yéen jullit ñëpp de leen wattandiku di jaxasoog e, nit ñoo xam ne daraay diine yitteelul leen ak nguur ak ceddo politique rek rek lañu gëm moom la xam te gëmuñu ne lañ cay dafa ko wax sunu borom dana leen ko xisaab moo tax ñu sañ def sañ wax lu leen neex ak nu leen neexee séentu wuñ dara bàyyiwuñ ce xel daray suñu borom ñu mel noonu na ngeen wat wattandiku di jaxasoo ak ñoom ndax jaxasoo ak ñoom mi ngi bokk ci mbir yi gën a bon ci kaw suuf euh, wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.